ñu ñëw ci nag émission bi nga xamante ne nag moom nañ dëppee sama talent waaye nag di émission bi nga xamante ne saa su ne euh, dafay daaneel ay ndaanaan saa su nekk muy nag émission boo xamante ne Sénégalais yi ko bëgg waaye muy émission boo xamante ne torekal la masala les plus Sénégal ñoo koy def DJ Momo saa su ne comme d'habitude ñu koy baaxee émission la boo xamante ni euh, képp koo xamante ne am nga talent ci li ngay euh, daal di dalal fii suñu plateau bi yaa fas yéene waxtaan yooyu si say jaar jaar comme ni ma koy waxee yaa xam ngoykat nga hmm, yaa xam tubaarkàll euh, ah, peintre kat nga ah, tubaarkàll loo mënta doon dañ la daan dalal muy am ay invité surprise nag ak ay ndaanaan émission bi dama ci mu bëgg naa la di la jaajëfalaat bu baax a baax mi <laughs> ñu noonu di leen jaajëfal di jaajëfal Cheikh Almy fidèle téléspectateur de Sunugal 24 selon que vous soyez en Afrique en Europe en Asie partout à travers le monde ñu ngi leen di nuyu tey amaan mbégte ak contentement bu mag a mag dalal leen fii ci biir plateau bi jàkkaarloog jant bi nga xam ne macha allah. waaw ah, surprise la waaw ah, macha allah. Eh, eh, eh. sama talent dafa doy waar. saa su comme ni ñu koy baaxee di wax dafa bokk ci musique Sénégal. Mm-hmm. lëmb na àdduna. dëgg la ah, lëmb na li nga xamante ni mooy ici et ailleurs. foo ko wóomu wuy si la. foo ko wóomu wuy si la. mën lépp. dëgg la muy doon koo xamante ni allah tur rek dafa njëkk a neex. dëgg la muy Ngóola Diba. Mm-hmm. bëggee. ak Saliou mu oh, Saliou maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara mm-hmm. ah, di euh, nuyu ñëpp ñi nga xamante ni mooy téléspectateur Sénégal euh, Sunugal 24 mm-hmm. ah, mu nekk émission boo xam ne dama koy suivre depuis la France mm-hmm. donc euh, ma koy apprécier donc voilà du coup kontaan naa trop fay ñëw fii. ndeysaan mi ngi noonu kii mooy Ngora Diva. ndeysaan c'est que dafa lay leer que ni téléspectateur dañu bëgg jëmm ji parce que plateau bi dafa leer. waaw nga may lu weex. mu may lu weex. Mhm. mu ñëw gën a leeral plateau bi. dëgg sama talaa. dëgg la dëgg ci mi ngi mhm. sax damay gis peut-être ay laafeem yu muy dóor da damay sàcc dugg. Mhm. gis kii ko sa tendition yi daf maa ko ci ni tey jii nii maanaam euh, dafa bokk ci nit. di ko jaajëfalaat bu baax baax ñu ko xam ci Ngóola Diva bu defee mu. ay mi ngi noonu ku sénégalais yi bëgg la. ku sénégalais yi ràññee ku sénégalais yi xam la muy ci plateforme yëpp. boo demee TikTok mi ngi koy toj. ah tuwaar kàlla ne gars yi koy flow nice ci TikTok bi te te moom xam nga moom day tëdd ba guddi rek jékki-jékki xalaat benn affaire rek vingt neuf mille mu mu mu leer na ni eh, Sénégalais yi bëgg ko mhm. gars yi ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax a baax mais Ngora Diba euh, émission sama talent la dafay émission boo xamante ni euh, dañu koy waxtaanee sa carrière ñu gis ni moom woykat la hmm. boo xamante ni tonte euh, nekkul Sénégal mais mi ngi dama ko ñëw hmm. mais Sénégalais yi mi ngi tëmbal ay quelques clips yoo xamante ni Sénégalais yi ñu ngi koy gis hmm. récemment amagum na deux clips yoo xamante ni euh, benn bi gëm sa bopp la benn bi merci président mais nag tey xam naa dañuy dugg si merci président bi rek waxtaanee ko mais avant loolu ñu ñëw ñu ñëw si gëm sa bopp gis nañ gëm sa bopp bi France boobu tourné pourquoi France parce que foofu la la foofu la foofu laa nekk depuis douze ans mais damay tontu euh, Saliou balaa dara ci li mu wax habillement sañse man dafa am solo mhm. teranga àddina bët dëgg te voilà euh, nit euh, da nga war a bëgg sa bopp mhm. moo tax mu commencé ak morceau gëm sa bopp voilà du coup dama bëgg dama dama sentir man Ngola Diva dama ko sentir dama sentir ne. Mhm. man samay yëf samay mbir c'est c'est des affaires d'une diva. du mhm. moo tax tu es la diva ci clip bu gëm sa bopp nga bàyyi Sénégal dem tourné ko fi nga xam ne mooy Europe. falaa ko morceau bi falaa ko enregistré fala ma fekk. Mhm. falaa ko tourné. parce que foofu noonu hôtel boobu dafa nekk hôtel boo xam ne liggéey naa fa def naa fa réceptionniste. def naa fa chef euh, de service. def naa fa. gouvernante d'hôtel mm-hmm. léegi nag mais hôtel dafa rafet mm-hmm. ma ne euh, woon euh, sama patron euh, bis bu may tourné clip fii laa koy tourné mu ne ma problème jour aussi mu jox ñu disponibilité yi ci war yëpp mm-hmm. ñu ñëw tourné ko malgré que bi may tourné clip boo fekk na ma toxu beneen dëkk mais dama ko woo mu accepté ñu tourné ko foofu muy hôtel Villa l'Atelier le bois de Cise ma koy remercier aussi bu baax sama sama sama ex allah inspiration yi fan la jógee. Mm-hmm. nga xëy sargal président de la république. Mm-hmm. mooy clip bu bees bi bu bees bi nga xam ni macha allah mu nga génne même pas 24 heures gars yi mi ngi lëmbe àdduna jii nii nii inspiration yi fan la jógee béy ni xaar ma sargal ki nga xam ne mooy président génne ko defal nga euh, président de la république moom moo nekk suñu njiitu réew. Mm-hmm. soo respecté sa président dañ lay respecté. parce que boo nekkee ci gétt tey mhm. euh, chef de gétt bi kenn respecté wu ko yow mi nekk ci gétt boo génnee gétt bi dem feneen kenn du la jox ci dëgg la mhm. te nit ki dañuy faral di jaawale chef d'état mhm. ak chef de parti tey nit ki même soo àndulee moom moo la jiite tu dois du respect te man damay faral di wax ne président yi malgré que ñoom ñoo opté pour nekk président dañoo bàyyi sacrifice bu bëri pour nekk président par exemple yow mun nga dox tey fii facilement ah, yow kese doon ah, kenn du la topp. Ah mun nga ànd say doom. am mm-hmm. seen loxo de marché dimanche. mun nga def ay affaires yu bëri. te loolu pour bëgg Sénégal ak bëgg liggéey Sénégal. Mm-hmm. tax na mu sacrifié euh, mu sacrifié ko ci ci ci ci biir mm-hmm. en plus ñun nekkuñu fi par exemple man nekkuma fi woon. damay dem su ma demee damay ñëw su ma ñëwee damay gis changement. donc bokkul ak yow ki nga xamante ni xëy na yaa ngi fi même malgré yaa ngi koy gis ah. Mm-hmm. mais man mi nga xamante ni maa ngi dem maa ngi ñëw maa ngi gis affaire yaa ngi évoluer mm-hmm. donc ma seetlu kenn gisuma kenn ku ko remercier wax ko merci et tout ma ne nag je prends mon engagement personnel. ma mm-hmm. sant ko. ci li muy ñu defal ci suñu Sénégal. parce que loolu aussi day bokk li tax ñu suñu génnee réew mi dem feneen. ñu ñu respecté ñu ñu xam ñu ñooy kan en fait. mais mais mais mais mais pourquoi pourquoi pourquoi euh, ñu gis euh, gars euh, nga xamante ni tubaarkaal dañuy bëri ñu critiquer. Mm-hmm. parce que jàpp nañu boo woowee président de la Macky Sall rek xaalis moo tax. est-ce que est-ce que est-ce loolu ba nga koy ba nga koy ba xalaat nga loolu. xam nga man président Macky Sall bi mu faloo léegi am na 12 ans. Mm-hmm. bi mu faloo fekk avant muy faloo fekk la maa ngi tukki. Mm-hmm. maa ngi lekk. Mhm. maa ngi naan. Mhm. maa ngi solu maa ngi dawal oto yu rafet. Mhm. ba mu falaw léegi. su ma ko way douze ans. te maa ngi sant yàlla. dëgg donc du coup. Euh, tey su ma ko woyee euh, woyuma ko faluwul rek ma woy ko. dëgg la. rek ma woy ko man maa ëmb sama projet def sama projet daggal sama bopp bi ñëw Sénégal pour woy Macky Sall. allah. defar sama clip am yéene bi nga xamante ni moom laa apporté pour woy ko moo tax ma sonn ci clip bi mhm. dem xool ñi nga xamante ni ay number one lañ ci tournage clip ma ñi nga xamante ni ay number lañ ci ci ci ci maanaam sañse mhm. muy jàgg couture nga xam ne Didi moo ko moo ko moo ko yore biir kër Papa Thion mhm. ñu defar ñu ñëwal ma ay sañse ma def attention ci lépp li nga xam ne moom lay sol moom lay sañse pour wane ne ni lii man Mm. sama décision bopp la man maa ko jël def ko. Mm-hmm. voilà te boo xoolee morso bi euh, boo ko dégloo da ngay xam ne lii yéene la en fait. Mm-hmm. clip bi macha allah image yi rafet na euh, sanc yi ci biir clip bi rafet na euh, tout récemment da ngay xam ne kii clip bi da ci da ci da ci da ci da ci job mm-hmm. da ci job quoi mais mu doon loo. mais booy def dara pour xaalis doo investir dëgg la booy def dara pour xaalis doo investir parce que nit mën nga koo way doo gis. Mhm. nit mën nga koo way du la du la du la du la wax sax merci ci way bi nga ma way. Mhm. nit mën nga koo way way bi du def dara mais comme da nga ko def parce que da nga ko sentir xaaroo ci dara. Mhm. moo tax muy demee noonu muy am ouverture muy ko moo tax ku koy seetaan di bég di xàppi mm-hmm. te ñun suñu voix la am man Macky Sall mënuma koo may 1000 francs mm-hmm. mënuma koo may 5000 mënuma koo may kër mënuma koo may oto mm-hmm. mais mën naa ci li ma am muy sama voix ma woy ko ci doon na yi nga xam ni ay sénégalais lañ des fois dañuy critiquer yooyu noonu te Macky Sall recevoir woon en tant que influenceuse parce que doon nga tey ko xam ni peut-être boo waxee gars yi déglu la. Mhm. lan jàllale comme maanaam euh, diggante sénégalais yi nga xam ne war na ko ci ñoom. Euh, balaa may tontu question boobu ma laa may fàtte. c'est mhm. que tey jii Saliou yow bu ñu nekkee. Mhm. ma war la critiquer. Mhm. balaa may lay critiquer bu dee man dëgg la ci man. Mhm. dama la waxal war a waxal say bien bienfait ba pare. après suma la critiquer critique boobu dina critique boobu dina positif naa ko mën a d'accord. dëgg la mais mënu ma d'accord sénégalais yi ak ñeneen. Mhm. di critiquer rek critiquer ba nga xamante ni lu baax li dañ koy nëbb loolu moo tax comme boo kenn waxul jërëjëf kenn waxul merci te nag ah def na moo tax ma ne ah man naa ka wax merci dëgg la man euh, dama bëgg sama réew Wayna Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ah bon. en 2012. Wayna Abdoulaye Wade ne ko siggil nga Sénégal siggil nga Africa. waaw maître Wade ñoo lay delloo njukkal. son boobu ñëpp ko. suñu réew mi bi ñu la koy dénk noroon na lool waaye fi mu nekk nii noddantiku na le Sénégal en chantier le Sénégal qui avance le Sénégal qui gagne yaa siggil Sénégal ñoo ngi lay delloo njukkal. Mm-hmm. à cette à cette époque là il m'avait un passeport diplomatique. pour les artistes pour ma dem jàngi musique mhm. juróomi baaraam yi suñu borom moo leen bind yamale wu leen président bu fi toog da ngay def li nga mën keneen ñëw toog def li mu mën mhm. kenn mënul matale lépp dëgg la mais nit ki li mu def nee ko jërëjëf jëra boot merci parce que lool day dundal xol parce que boo ko seetee ci sa bopp nga nekk sa biir kër chaque jour nga génne dépense chaque jour ngay demee dépense ñu la koy xeebal wala ñu la koy xasal mhm. après tu de donner ou Mm-hmm. te président Macky Sall nag jàmbaar la. dëgg parce que jàmbaar la. Mm-hmm. jàmbaar la donc du coup man sama xol benn instant dafa sot parce que su ma toogee may dégg ne diw dafa dund injustice diw dafa dugg injustice chaque jour Macky Sall dund injustice te kenn du ko ko waxala mm-hmm. waxal nit lu mu deful te mënul tontu. parce que nee nañ. Euh, benn kilifa daf na wax ne saa ñu la tuumalee dara nga génn tontu bis bu ñu la tuumalee tontu woo dañ naan yaa ko def. Mhm. mais chaque jour ñu yëkkati ci sa der bi def ci loo xamante ni yow defoo waxoo yëgoo tinoo mhm. nga am njaboot am doom am famille. adduna yëpp di la boo ko xoolee ci yow mii rek Saliou nga xam ne keroog nii nga da nga da nga siiw. Mhm. ñu ne yow Saliou ah, dafa tooñ doomu jàmbur fekk defoo ko da lay naqari. automatiquement da lay naqari. dëgg la te man seetlu naa benn moment boo xamante ni dama gisoon loolu ci président que dama sentais ne comme si il était tout seul quoi. Mhm. donc du coup je me suis dit euh, loolu moo ma inspiré en fait. Mhm. tey nag du ma géej Sénégal tout le temps maa ngi. Mhm. Ah, dafay doon loo xamante ne sax si loolu laa bëgg ñu nga ñëw sa question parce que parce que Diva ni ko xamee moom dafay doon koo xamante ah, dafay jël vol rek ah toi rek yàlla ah, yàlla taral na ko daal <laughs> moom bari na lu muy voyage euh, bari loo xamante ni dafay dafay dafay dem ko ñëw mais mais Ngoné la Diva est-ce que est waaw loolu la décidé ci tànk yooyu laa nekk nii. ah ci tànk yooyu laa nekk nii mais dafa nekk loo xamante ni lu décision bu ma jël rek sur un coup de tête. Mm-hmm. ndaxte euh, daanaka deux mille vingt ak deux mille vingt et ñëw naa fi juróom yoon. Mm-hmm. jël na avion bi juróom-ñaari yoon dem ñëw parce que damay liggéey ak ku ñuy wax Laye Diagne moom may defaral samay son. Mhm. et du coup à tout moment bu ma sentiree dara damay ñëw liggéey ak moom demaat. Mhm. waaw beneen bi mooy aussi Wally suy jouer euh, ay concert Gambie wala Sénégal wala damay ñëw def première partie. Mm-hmm. du coup damay ñëw def première partie demaat comme 31 décembre ñëw naa le 31 ci jour bi laa ñëw. egg si 15 heures dem maquillé wu et tout ça guddi gi ma woy après 10 jours ma dellu. Mm-hmm. après ci laa ñëwaat nii. Mm-hmm. donc euh, comme li may wax yàlla de may kii mu nekk chroniqueur. kii mu may ko leneen kii mu may man yàlla may na ma yombalal ma. dem ak ñëw. loolu dama koy sante suñu borom parce que bi may njëkk a voyager. jëluma jëluma avion de. ah bon. non. Hmm. train laa jël fii ci gaar bi ma dem ba ba Bamako. def mhm. def deux jours. Hmm? après ma dem moom na ay jamono train yu doon yóbbu bagage yi. ma def deux jours dem ba ba ma ko wàcc ci gaar bi. Mhm. fay vingt cinq france sangu. Mhm. solaat sama yeneen yére. dem Bénin. dem Bénin. waaw parce que boobu dégg naa am na boîte de nuit bu mag foofu. bu ñuy def karaoké. mais musique laa bëgg. ma bokk nag ci waa kër Serigne Touba. Mhm. am ay nijaay yu sant Mbacke sama yaay sëyoon ak sëñ Modou Bousso Dieng. Mhm. ma nekk ci famille boo xamante ni euh, dafa bokk ak maam Cheikh Ibra Fall sëñ Taïba Niang mooy sama maam. damaa war a toog ñuy raam sama tànk ma xam ne su ma toogee Sénégal. Mhm. duñ ma baay ma musique. dëgg ma dem ma dem bi ma demee yàlla dogal euh, j'ai respecté aussi la culture sénégalaise. Mm-hmm. mooy euh, jigéen te boppam ba nekk ba marié wu et tout ça je suis restée là-bas. Mm-hmm. toxuma naanuma defuma lépp loo xamante ni. moom la sénégalais lambda bu nekk Sénégal di def. Mhm. donc j'ai j'ai pu respecter mhm. sama culture. donc mhm. culture di lu am solo. du coup voilà ma nekk foofu di def karaoké. Euh, di dem yeneen dëkk yi Gabon Bénin Nigéria Côte d'Ivoire foofu laa sous région foofu laa njëkk voyagé nag. moo tax ma ne la tukki xëy na leneen la loo xamante ni tey jii mën naa toog tey. tukki nekkul ci sama sama programme. mais damay jékki-jékki rek sama tànk yi di xasan fekk ne am na benn voyage moo war a def mhm. damay jékki-jékki rek yàlla da koy yombalal donc loolu seetlu naa ni suñu borom moom ma ko moom ko bindee ko mhm. voyage mooy tukki mën naa voilà du coup loolu la après ci laa commencé nag foofu mhm. euh, comme li ma li ma li nga xamante ni moo tax ma def musique sama nijaay moo doon nekkoon DJ du coup da doon euh, animé. Mhm. et puis après ci kër gi da doon teg ay morceaux. ay mhm. Luciano Morgan Heritage. Mhm. ay eh, Sadi Ado. ay Lucky Dube. ay Céline ma koy déglu. damay jaral sax ma defaral ko néeg bi. pour toog ci néeg bi déglu musique bu bu ma fa fekkee mu bañ ma mu bañ ma génne ci néeg bi. du mu Moussa mu tudd Moustapha Diop ma koy saluer de passage mu ngi Sandaga. et puis après euh, ci loolu noonu. moom ma dimbali moom mu permettre ma ma mën a woy karaoké. Mhm. parce que ay morceaux la yoo miin soo demee ñu dindi voix yi. Mhm. defal la son bi nga woy ko. Mhm. donc ma def ko ma def ko à l'étranger franchement mu jural ma ay relations yu baax macha allah ku ci mel ni Montan Kérékou doomu Mathieu Kérékou nga xamante ni il était président du Bénin de 72 à 2006. donc euh, yàlla mooy def loolu nga nekk ci benn cercle boo xam ne ay ay ay kilifa la ñuy doon. ndeysaan <laughs> ñu retourné tuuti en arrière. nga jóge fi France ñëw Sénégal. Mhm. jóge fi Sénégal dem Gambie. Mhm. dem ba benn histoire sax daanaka boo xam ni amoon fi. Mhm. ci diggante yow ak Viviane. nga demoon jóge France ba ñëw Sénégal dem Gambie. war a yéeg ci kaw seenam joué am loo xam ni defoon na fi it mi est-ce que loolu ba mu jàllee dëggante nga ak moom. wala euh, expliqué nañ la carrément lan moo tax joué woo. non non donc comme li may faral di wax rek euh, man bi may jógee boobu dama defoon benn vidéo mhm. wax ne damay dem soirée damay dem. yoon <laughs> donc voilà dama dama def benn vidéo ndeysaan euh, bi ma defee vidéo bi am ku ma ne est-ce que dina la intéressé nga way ci soirée boobu noonu après ma ne ko amul benn problème fekk jëndoon naa billet. ma changé billet dem euh, léegi bi ma demee yegg ma ma comme ni ma war a defee parce que comme envie la. Euh, de, de retour voilà je je, je l'avais pas fait méchamment dama ko defoon rek pour que Ketchup topp ma euh, Gambie donc c'était pour ma promo personnelle mhm. c'est que den sa yi nga nekk artiste boo xamante ni siiw nga ba pare soxlawuloo promo mhm. même su fekkee sa soirée la soxlawuloo promo mhm. xam nañ la ba pare man mi nga xam ni siiw ma Sénégal c'est obligé ma ma def promo donc loolu rek laa def mais c'était pas concurrence wala dara donc ñun ci réew ay Kumba Gawlo ak ñeneen ak ñeneen fii lañ leen fekk ñuy woy mhm. bokk nañ ci ñu ñu woyloo mhm. ñu naw leen aussi trop donc ma dem foofu bi ma demee ma dem gis ñi nga xamante ni ñoo ma ne naa ñëw ma ma wax leen ñëw naa et tout ça ñu ne ma ndax fii ngay dal suñu hôtel ma ne leen noo dama dal feneen parce que comme dama am nag ay nit mhm. mieux vaut que ma dal ak ñoom sama chauffeur Ketchup ak ñeneen ma dalal leen foofu ma tam ma dal foofu donc bi nga xamante ne euh, artiste bi ñëw na nga gis seen comportement changé mm-hmm. donc seen comportement bi mu changé man tamit ma daal di dem ci ñoom euh, expliquer ñu jox ma numéro mm-hmm. ñu jox ma numéro pour ne non non numéro promoteur mm-hmm. léegi bi ma joxee numéro promoteur bi ki ki ki ci organisation bi daf ma jox benn numéro ma man bi ma solo ba pare comme ni ma tey 10 heures ngeen ma jox mooy une minute maa ngi fi <laughs> dama ponctuel donc bi nga xamante ne ñëw naa ma pare maquillage et tout ma ne ko léegi ma woo waay ji ma ne ko léegi kii ma gis ko mu commencé bizarre après nag mu ne ma ne ko dama jox numéro de téléphone mu jox moom numéro ma pour wax ko laaj ko ban heure laay joué mu wax ma ban heure laay joué tout ça léegi bi mu ñu joxee beneen numéro ñu composé ko ci Gambien bi nekk foofu mu nekk numéro de la même personne parce que turam moo génn ma xam ni am na yaa am na loo war xew donc voilà léegi bi nga xamante ni dem naa ba foofu war a dugg Ketchup mi ma àndaloon mu ne leen dama ànd ak benn artiste artiste bi sama artiste la àndal garde corps bi ne ko fii boo leen fi dugg da ngeen di fay xam nga tontu boobu rek ça montre que kooku kooku daa xam nga ku paas billet avion moom 10 000 francs dugg ci soirée du la du la jaaxal donc du coup finalement euh, kooku wax loolu wax bi dëgër xam nga affaire góor. Mm-hmm. xam nga tem ku yi commencé dem. après man nag ko garaawul léegi ñëwal après ñoom ñu ñëw xam nga te son bi yónnee nañ leen ko bu yàgg euh, ñu waroon ko drop wàcce ko quoi. Mm-hmm. après ñu ne waaw ñu commencé panique paniquer voilà amuñu clé machin nana ni chose et tout. après ñun on a compris que voilà y quelque chose mais le quelque chose loolu après ñun euh, après man dama focus suma ci dama mais la fa xew bokk na ci li ma gën a may jom lafa xew jànge naa ci gën na ma poussé gën na ma may jom gën na ma may fit gën na ma may courage pour ma avancer ci li nga xam ne ci laa nekk mënoon naa fa nekk di jooy wala may yuuxu wala non dama dem euh, after party sa doole xaaral sax parce loo xam ne sax yow xoolal xam nga tey dama lay wax benn affaire tey yow mën ngay woy man may woy ñu bokk public. Mm-hmm. nañu bàyyi di foog ne nit ñi public dafa différent même mm-hmm. nit yi ñooy bëgg diw bëgg diw. même mm. nit yi kon nag bu ñu jéem a créer ku bëgg kii waroo bëgg ki mm-hmm. sa public yow mën na la bëgg. mun na bëgg ki ci jaam ak salaam parce que Sénégal loolu la ñuy wax déew teraanga la nañu delluwaat ci ginnaaw ci culture yi ñu sekk jàmm parce que tey marché boo fa demee kiy jaay jën ñaata jaaykat jën ñooy ñooy daan di jaay yabooy te ñoom ñëpp ñooy jaay ba mu jeex te kenn du am problème te dañu nekk ci jàmm ñiy jaay roof bëri nañ fa ak leneen ak leneen nañ ko jàppee noonu musique bi pour ñu mën a avancer parce que ñun mënuñu suñu nekkee à l'étranger ñu ñuy xoolee yow sénégalais nga tu étranger étrangère ñu ñëwee Sénégal ñu ñuy xoolee non dëkk fi daa ñëw vacances non moodu moodu la du coup après on sait pas sur quel ci ñenn ñi ma ko sañ a wax mais man moom xam naa ban pied laay danser waaw vous léegi ah, xam naa ne li ñuy deseeti waxtu bareetul uh-huh. mais en tant que tuuti dañuy laal tuuti ci actualité uh-huh. parce que ku nekk xam ne ni euh, temps yi dafa bari ci kàddu yoo xamante dañu koy dégg ci jamono ji muy muy uh-huh. li nga xamante ni moom mooy influenceuse yi euh, yi nga xamante ni ah, euh, ñu koy wax ci kàddu sénégalais yi man affaire bi bi mu amee man jotuma ko seetaan mm-hmm. ah courage seetaan ko ah, mm-hmm. parce que dama koy xool ci sama bopp rek tukki naa voyagé naa dem naa fu fu nekk mais lu loolu taxul ma bon taxul ma def naka sudul noonu mhm. dans la vie si tu veux quelque chose il faut jamais céder au chantage ñun ay jigéen lañu ah mhm. des fois da ngay gis ñu lay chantage des fois dañ lay proposer aduna nit waroo yàkkamti mhm. te lépp nag ci doylu la gis nga boo doyloo am na yu bari doo ko def parce que boo gëmee ni yow lii ngay def lu bon lii pour am lii mën ngaa toog xaar ko def lu baax pour am loolu tu vas tu vas attendre te aussi dama bëgg pas ñi def loolu ba pare jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ay xale di ñëw bàyyi di envier nit ki def snapam nañu bàyyi nit ki nekk benn endroit di snap yow nga gis ko envier ko ba mu jaral la nga def yenn yi pour am benn greffage bi snap wala nga am benn iPhone bi snap hmm. il faut ko ñuy waxtaan ak xale il faut que ñuy sensibiliser xale yi hmm. donc du coup man foofu laay waxee mais hmm. nit ki euh, comme li may faral di wax rek mar naan ku mu taxa naan petite bu revenez ubbee nga rus donc il faut que gel yi jigéen yi parce que jigéen mooy jur président mooy jur mooy jur ku baax ki fi ne kilifa diine kilifa aada mhm. donc nañu xoolaat doxalin bi mhm. waaw te ñu bañ jiital xaalis bi mhm. nañu nañu delluwaat ca ñoom maam ñu xoolaat euh, suñu toogaay bu baax ak suñu ay doxalin loolu tey di leen fàttali que ni yéen a ci biir émission bu mag bi sur Instagram TikTok ba si YouTube boo fa duggee ah, di nga gis clip bu yaaji bu bees bi nga xam ne moom la def léegi avant ah, ma dugal sama benn question bu ko defee ñu daal di retourner ci promotion clip bi tey jii nii su ma la laajoon sa digganteeg Serigne Saliou ndax doon nga ki nga xam ni macha allah bëgg nga ko ba ci sax defal na la ay mbir tey ji moo ñu ci mënoon tëfal tuuti ñu daal di ñëwaat ci clip bi. ah sama diggante ak Serigne Saliou donc man du euh, euh, famille Mouride laa bokk diggante garage Dakar ak 28. Euh, sama juróom-ñaari maam ñu ngi dëkk foofu ba léegi nii am seen kër ak seen njaboot. Mhm. donc du coup comme ni ma la ko waxee sànq am naa ay maam foofu ah, donc du coup. sama yaay aussi Seyno ak sëñ Maodo Bousso Dieng ah mhm. du coup Serigne Saliou bëggoon naa ko trop mhm. ah, di ko dem seeti ah moom mu amoon euh, ñetti bëkk nekk Ibrahima Ibrahima seen bu ñuul ak Ibrahima seen bu xees. Mhm. ak aatu donc ñoo ñëpp dama daan dem ci ñoom euh, xam ni bëgg bi ma bëgg sëñ Saliou moo dama ko daan gis macha allah donc daf ma daan ñaanal. Euh, am na jamono sax feebar naa ñu yóbbu ci ma ci moom mu yebal ma ci sa mu mu ñaanal ma yebal ma ci Serigne Baara Serigne Baara ñaanal ma tegtal ma fu ma fajoo ci loolu laa wéree. Mhm. Serigne <clears throat> li ma kii ci moom bëri na Cheikh Béthio. Mhm. mu jooy donc. Euh, aussi loolu aussi gënoon na ma euh, euh, euh, xëcc ci Serigne Saliou parce que bi may weex bi ma koy wax ne Euh, Sëriñ Saaliwu Mbàkke ak Cheikh Béthio ñi ñaar yàgg nañ lool bam ko njëkkee gis la ko topp di lang ca wëtir waa mu teeru ko teral ko reyal ko fa am gàtt man ma jébaloo raam leen jébaloo man ngoone dama jébaloo ci Cheikh Saaliwu Mbàkke ndeysaan bi <laughs> ngi doon ah Ngor Diva saa su nekk rek parce que saa yi euh, dafa mel li ñu jégleloon ci daal di jeex waaye nag dama bëggoon mu ñëw tuuti rek euh, benn question boo xamante balaa ñu ñëw moment de divertissement mhm. euh, balaa ñu ñëw ci say projet balaa ñu ñëw yeneen ñu fi gis parce que saa yi Ngoné la diva euh, dafay ànd ak ay garde ko mais waaw mais mais mais mais mais mais parce que xoolal sourire bi ah. <laughs> ngeen dem sur sur YouTube bu ko defee mhm. bu ngeen tapé Ngoné la diva mhm. Macky Sall bi ngeen ko gis gis ngeen xoolal lii macha allah lu rafet mais vidéo bi ku ko def dafa ah, na Pape Didier moo ko def. Pape Didier waaw ak euh, garaam bu bi vert zone rouge bi. ak Ina ca côté ba. ndeysaan eh, <laughs> macha allah. dafay dafay dafay dafay dafay clip boo xamante ni Sénégalais yi mën nañu ko mën nañu ko mën nañu ko dem euh, suivre si sa scène. waaw c'est son page Youssouf Ngola Diva. Ngola Diva. moom mm. page bi amul woon activité. Mm-hmm. donc amul ay abonné yu bëri dem leen ngeen abonné ngeen flow ko. Mm-hmm. Euh, Ah, dem dem dem dem laaj koy mhm. mi ngi noonu léegi léegi door mën nga mën nga mën nga ma teel li nga xamante ne moom mooy clip bi ma ñëwaat ci sama benn question balaa ñuy dem ci li nga xamante ne moom mooy moment de divertissement euh, Ngo La Diva ñu gis sa kër Papa Thione sa relation ak Papa Thione Papa Thione ah Papa Thione yal na ko yàlla yërëm sama papa la woon mhm. dama ko bëggoon bëgg lu muy def parce que aussi dama dama koy roy lu bari parce que musul woy way bu amul eh, way bu jàngalewul wala way bu yeetowul wala woy bu am importance donc di coup man woy bu ma nar a way te du am sens ma ma je préfère ma bañ ko way mu nekkoon sama papa nag bëggoon ma nag bëggaloon ma boppam mhm. daf ma bëggaloon boppam ba comme ku bëgg euh, euh, comme doomam bu mu jur parce que des fois dañ ne la loo bokk ak Wally mhm. wala ñu ne ma loo bokk ak Papa Thione mhm. ah, doomu Papa Thione nga mhm. xam nga sama yaay jaaga mu yar ma ci kër googu mu yor ma ci kër googu euh, comme doom yi mu jur ah donc du coup voilà euh, foofu laa jógee ñëw fii. Mhm. et du coup mu ngi noonu loolu relation ba ñu amoon lañ am. Mhm. muy relation familiale. waaw euh, coloré bi nekk fi ñoom ñu jàpp ko man ma jàpp ko. voilà ñu nekk ci jàmm ñu ñaan aussi a ngi noonu saa su nekk rek comme ni ñu leen koy daal di waxee rek ngóolaa di valence amoon waaye nag dañuy dem ci li nga xamante nag moom mooy moment de divertissement mu tudd gàtt balaa ñuy waxtaanee projet yi loolu ci fin émission bi lay doon euh, ko nag mu ànd ak ñaari garde na ko ah ñetti ah, am na ko waa kay koo xamante ni toir kàlla hmm. sax waaw mais góor góor xanaa xanaa xanaa oori la du loolu xam nga xam nga yow xanaa mosoo ma gis may génn mosoo gis sama génn. ah, ah man. la tigresse. dëngoo la diva. ma gis man c'est que man dama ko man man dama ko bëgg. parce que ay capricieux moom ay capricieux yooyu moom ma neex parce que moom dafa dafa dafa am lu nekk ci moom dafa ba pare dëgër fit waaw ah, yaa ngi comprendre léegi yow ma gis may génn waaw waxal ci sa génn ah, man su may génn day nu may génne fu may dem ak nu ma fay demee donc hmm? euh, te ñi samay frère lañu hmm. xam nga ils sont très protecteurs dañu dañu may dañuy protéger seen sister parce que boo amee. Mhm. aussi benn sister boo xamante ni maam. Sénégalais yi bëgg nañ ko àdduna xam nañ ko. du coup day takk ay or ah ah. te fit bi te fit bi dafa xaw a rëy du coup euh, mhm. da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da nga koy protéger. donc euh, voilà loolu moo tax su may génn ñoom dañu may dañu may dañu may jiital dawalal ma. xam nga mhm. àndal ma ànd ak man. donc voilà loolu la quoi. mais moom dafa mel dafa xam am xadar parce que xam naa embouteillage day am rek mu ni pepe benn corne rek euh, wàcc saaga xeex. ba doo def noonu non non non non <laughs> parce que fii laa fii laa dama bi fii laa amee permis Sénégal après aussi euh, def naa ay cours fële. Mhm. Euh, presque fay naa 3000 euros pour pour mun na dawal France. Mhm. parce que dafa dafa dafa dafa nekk lu xaw a dangereux parce que ñu bëri dañuy am. Euh, seen permis Afrique. suñu mhm. demee foofu euh, du ñu jàng. Euh, code de la route foofu. waaw te te yoon yi du ñu benn mooy tax ngay gis faral di gis accident yi ñuy raaw mais du du ma ci boole wax ju bëri su may damay damay def rek li nga xamante ni mooy yoon. Mhm. après du coup après voilà mais mu ngi noonu mais liñ gas yëpp buñ ko suulee. Mhm. Macky lim gas yëpp bu ko suulee rek. après yoon yi dina. ah sa président bi suñu président yi waxuma sa président mais daal en tout cas yi di wax bari na yi ne daal. il est président de tous les Sénégalais. nga ànd ak moom il est ton président ànduloog moom c' est ton président il faut que nit yi ñu comprendre ne c' le président de la république du Sénégal mm-hmm. mm-hmm. c' le chef d' état mm-hmm. on lui doit du respect dëgg la oh. nag il faut pas confondre le chef de l' état et chef de parti bu la chef de l' état respecté ko parce que il est chef de l' chef de parti la bu la neexee nga ak parti bu la neex mais ki nga xamante ni lu mu dee dee moo def na fi li nga xamante ni man man man dam man musuma imaginer am terre fii Dakar Sénégal mhm. te yéegaguma terre yi dinaa ci yéeg ah yenn saa snap ma jaawale ko ma foog ni xam nga parce que tamit dafay doon loo am solo ñuy remercier ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall ndax mhm. ah, gis nañ ci yoo xamante ni dañ koy tudd léegi ci ci àdduna bi waaw ah, am ay joueurs yoo xamante tam dañ leen di ci àdduna bi te lépp ci temps la xewaan am aéroport boo xamante ni am autoroute à boo xamante léegi euh, même pas deux de temps nga dem fi nga bëgg a dem wala une de temps kon loolu dañ koy sant ki nga xamante moom mooy suñu président Macky Sall man de saa su ne nee naa de man bokk bu ma doon sànniwaat carte laa koy sànnilaat ah ah loolu moom am nga si droit nit ku nekk nit ku nekk mhm. am nga droit ci loolu noonu mhm. te euh, euh, may def mention spéciale pour être un grand homme il faut avoir une grande dame derrière. Mm-hmm. dafa am ay jigéen yoo xam ne damay roy ci ñoom ku mel ni Michelle Obama. Mm-hmm. Marème Faye Sall ak mm-hmm. ñeneen ñeneen. da ngay gis li ñuy def et damay seetlu ne loolu amul visibilité. des na visibilité bi des na. lu baax li ñuy def. Euh, dafa des wane bi li lu baax li ñuy def wane biñ ko war a wane. fësal bi moo des fësal bi donc du coup man. Euh, loolu dama ci dama ci damay dama ci am yu bëri yu ma ci xam. Mhm. mais damay xam ne sénégalais yi aussi xamuñu ko. Mhm. te aussi dafa am benn affaire boo xam ne chaque fois dama ko faral di wax. Mhm. tey le président de la république. yow sénégalais nga. tu as la carte d'identité sénégalaise. tey il est le président de la république. yow am na loo seetlu ci réew mi. war nga mën a bind sa audience ba mu jekk. nga déposé ko dem jàkkaarloo moom ne ko président lii ak lii ak lii moo xew ci réew wala président lii ak lii ak lii moo am ci réew mi. Mhm. mais nit doo ko fal ba pare bàyyi ko mu diriger ba pare nga ne ah naa nekk ci ginnaawam rek di ko critiquer. Mhm. ñun jeunesse bi dañu fa am beneen euh, toogaay bu ñu war a jugaat toog ko mooy lan mooy euh, ñu xam ni réew mi ñoo ko moom suñu réew la malgré que am na ku ko diriger mhm. mais aussi ñu fexe Mm-hmm. nu ñuy waxee ak moom nu ñuy gisante ak moom nu ñuy saafante ak moom mën koo wax ah ñun jeunesse bi lii mooy suñu problème. Mm-hmm. ak lii ak lii ak lii. Mm-hmm. mais sa jàngoro soo ko waxul sa médecin mënu ko faj. dëgg la voilà. Oh, macha allah ah, defe naa ne li ci des bëreetul ñu jàll divertissement bi te après ñu dugg ci projet ayca mi ngi noonu dañuy dem li nga xamante moom mooy moment de divertissement ànd ci ki nga xamante moom mooy Fouguéry euh, ñu dem moment de divertissement te ñëwaat ayca moment de divertissement. ayca mi ngi noonu fu moment de divertissement mu bàyyi la nga waxtaan ak ki nga xamante ni mooy Ndoola Diba say question yu mujj ayca jàkkaarloo jant bi mun naa la jant moom mënoo koo muur muur muur ba du feeñ mi ngi noonu noonu la demee di amaat mbëgte ak kontaantement bu mag ànd ak moom ci plateau bi lii nag question réponse la bu mhm. ma laajoon diggante Sénégal ak euh, France boo ci doon taamu ban nga may wax euh, Sénégal waaye Sénégal lay taamu parce que fii laa juddoo fii laa màggee fii laa am mhm. mais euh, dinaa ci aussi xaw dina xaw compliqué. xaw a njambaas <laughs> parce que wax dëgg wax waaw wax parce que foofu yàlla yàlla dimbali na dimbali nañu. Mhm. am na lum ñu fa may te am na lu ñu fa tibbee am na lu fa jàngee ah, am na fa njaboot aussi. Mhm. donc voilà kon euh, c'est divisé entre les deux. ok diggante Papa Thione ak Wally ñu waxoon pour nga jël ci kenn. suñ ma waxoon diggante Papa Thione ak Wally Papa Thione lay jël parce que Wally sax Papa Thione lay jël. Mm-hmm. <laughs> mais nag comme Papa Thione nekkatu fi. Mm-hmm. ba ci Wally la ñuy jàpp mooy suñu kilifa du coup voilà. waaw mm-hmm. plat préféré. plat préféré man suppu kànja. mën nga ko toog. trop man damay régal. man yëpp lay togg damay togg ceebu plat sénégalais plat euh, béninois damay togg plat euh, ndolé bu Cameroun damay togg yëpp Tchèque Côte d'Ivoire parce que j'ai fait tous ces pays mhm. la ko ci jël euh, parce que je suis pas pressé pourquoi je prendre 10 000 j'ai pas besoin là. Ah. <laughs> <laughs> sa xarit ak sa mbokk. sama xarit ak sama mbokk sama xarit ak ah loolu compliqué na de. Mhm. ah damay jël ñaar yëpp. parce que sama xarit yi dem nañ ba nekk samay mbokk. ku ci mel ni Oumou Sakho. Mhm. sama meilleure yi ah, ma koy def kuku moo ngi nekk Sika Foire. Mhm. ah damay damay damay dem këram di may damay damay dem këram di dal këram di fanaan këram. Ah, on partage tout euh, voilà sama comme sama mbokk la léegi nag. tey ci sa live boo ñu doon expliquer bu sa àdduna boo xam ni touché na la trop euh, euh, ma touché trop. récemment wala bu yàgg. bu yàgg ça dépend ci yow. dese Papa Thione touché na ma trop. noo ko yëgee. parce que dama dama ñëw fii euh, nekk ak moom ba benn mooy temps yu may dem Gambie noonu oh, franchement mu accompagner ma ci aussi di ma conseiller tou bi nga xamante ne jóge naa fii ñëw naa mu ne ma Ngoné da ngay ñibbi si affaire bi fii la yow sa place fii la mhm. mu ne ma sa caac la da ngay ñëw toog fii nga def mu ne ma mu ne ma man maa lay maa lay teg ci code maa lay jàppale maa lay wax defal nii da ngay dugg studio mën na la defal lii nga def ko defoo ko ma dàq la genre yooyu nag ñu reetaan euh, bi nga xamante ne euh, dem naa le le le trois mhm. le trois laa fi laa fi euh, non la dama dem quelque jours après rek mu décédé te mu ngi doon ubbi waaj ubbi Balago TV mu ne ma da ngay da ngay nekk da ngay nekk di animer foofu Balago TV hmm. du coup euh, ñu prévoir ne dañuy damay damay nekk foofu après mu ne ma da ngay am na benn look bu may def cran la sama bopp hmm. daf may wax ne ma yow euh, lii mooy sa look del def lii et tout chaque fois dama koy def mu dinaa ko def presque benn yoon ci mois bi mu ne ma léegi yow boo doon présenté émission bi looy wax ma ne ko ma ne ko damay ñëw ma ne salaamaaleykum euh, waa Sénégal waa diaspora mhm. maa ngi Diva maa ngi leen da ngay ñëw nga ne Ngola Diva ñëw na <laughs> da ngay ñëw nga ne Ngola Diva ñëw na seen émission mu ne ma loolu moo ëpp mu nekkoon koo xamante ni c'était ma force mhm. moo ma doon dooleel mhm. tey manqué na ma parce que wéetal na ma su ma gëstoo du ma ko gis mais macha allah maa ngi gis famille bi yëpp sama wet du coup voilà alhamdulilah mais euh, Seydina bu Sénégal moo ma woo. Mhm. fekk may tëdd mu ne ma ngoone yëngalu xew ma ne ko lu xew mu ne ma sa papa coon mhm. dem na ma ne ko ma ma raccroché ma woo Mouhamed appel vidéo laa woo Mouhamed Mouhamed Seck ma ne ko Mouhamed c'est ñoo ngi nii di dem hôpital après bah c'était euh, c'était comme si adduna bi moo doon wàcc sama kaw. Mhm. parce que moment bi ma nekkee Bénin. Mhm. loolu yàgg na di dem voyage ni ki xale yi mais dafa nekkoon ni ko xam ne su ma ñëwee daf may xool ak bëtu yërmaande ne ma mhm. ñëw nga ma ne ko waaw ana marchandise ma ne ko indi naa ko et dama doon jaay ay yére ay affaire daf may xool na de. Mhm. teel na ci yow. Mhm. parce que il pour moi. Mhm. moo tax du ma jug ci di ko ñaanal du ma jug di ci di ko ñaanal lu bëri bëri ku ma wéete na ma loolu mu manqué dama récemment moom. Mm-hmm. loolu moom touché na ma trop. Mm-hmm. Aïcha mi ngi noonu mi ngi noonu moom defe naa ne euh, presque l' émission tire à sa a euh, nga xamante a fii dem dama nekkoon fii euh, depuis ma nekk xale mm-hmm. ma nekkee xale Euh, li ma njëkk a def mooy reggae ak rap. Mhm. du coup après noonu ci ni may bindee samay freestyle. Mhm. ci laa xam ne man yàlla may na ma dara. Mhm. écriture dama ko gaaw dama ko yombale macha allah. après may dem di dem àddina di dem di dem ba ma jis ci sama bopp ci musique euh, variété afrobeat et autres donc euh, dem naa. à l'étranger jàng naa musique mhm. xoslu naa foofu aussi mhm. léegi nag tey ñëw naa dama bëgg a wu Sénégal mhm. di jouer tous les tous les vendredis wala tous les mercredis wala fer yooyu parce que man bëgguma woon ci xuus euh, nit ñi songu ma bëgg ma ba pare fekkente ne du ma du ma leen mën a jox li ñu soxla. Mhm. wala du ma mën a présente nu mu waree. Mhm. Euh, sumay début j'ai été chez Rock Mbalax ah mhm. boo fa Aram Coy di nekk maa ngi fa woon ak Ngone elle est décédée maintenant. Euh, aussi mu nekkoon ko aussi ko ko xamante ni yàlla na ko yàlla yaram ku ma gëmoon la daf ma gëmoon aussi. mais tey projet yi mooy di génne ay single di génne ay album di génne ay ay vidéo di di di di di di di mën am suma public bu bopp. Mhm. ñoo xamante ni bu ñu nammee la diva xam nañ ni mercredi day jouer tel endroit. Mhm. bu ñu nammee la diva xam nañ ni day jouer tel kii et boo seetloo comme yaa ngi wax sànq TikTok. je suis très ak sama public te loolu ñaanuma yàlla mu changé mm. damay waxtaan ak ñoom damay tiktok ak ñoom damay def ak ñoom damay ne bis bu ma amee staff bu sévère j'espère que duñu ma tere live tiktok <laughs> ah tu mm-hmm. parce que damay leen di jege di waxtaan ak ñoom parce que man aussi lu ma dund la mm-hmm. ñun waykat yi dañuy am waykat bu nu fan mm-hmm. dañ koy fan mais duñ ko mën a gis duñ ko mën a dégg donc le fait qu'on communique avec daf ñu am lu muy ñuy def day neexal suñu xol. Mhm. mais nga bëgg nit ki lijjantiwu la faalewu la loolu dafa metti donc du coup man sama public dama leen jege donc dañuy waxtaan am na groupe whatsapp boo xam ne ci la ñuy daje di waxtaan. Mhm. et tout donc voilà quoi. Mhm. mu ngi noonu ayca daanaka mën nga joxe wala lan ngay tàggatoo te spectateurs yi lan ngay joxe sa kàddu bu mujj plateau sama kanam. Euh, euh, Aliou jox ma saag bi man balaa may tàggatoo damay damay damay damay kii am na benn saag boo ci nekk ci mhm. balaa may dama leen di may ay ay ay ay ay affaire sama sponsor xippi xool. mais mais mais mais waaye doo ma doo ma doo ma doo ma jëlee waajee ngir yàlla sama waay doo ñëw taxaw ni turi ah ah. mais sama waay ñetti garde corps la àndal ah, ah. waaw waaw am lii. Aliou ak. Euh, vraiment. Mm-hmm. voilà lii man nag dama damaa indi au pif donc du coup lii mooy mm-hmm. euh, sponsor bi mooy Xipil Xool. Xipil Xool ah Xipil Xool moo moo mooy sponsor Ngola Diva. Mm-hmm. lépp lu Ngola Diva di def moo koy sponsorisé. ba ci clip bi ah da ko sponsorisé léegi mu ngi nii. la diva. la diva donc yéen tey am ngeen lii. Mhm. ah dinaa leen dem fenn da ngay yóbbu sëriñ waaw léegi du coup léegi. Mhm. lii casquette yi la. xippil xool xippil xool ah xippil xool. xippil ah, xool mooy mu waaw xippil xool. waaw <laughs> xippil xool voilà du coup voilà mi ngi noonu donc am na XL. L ak M yow moom M ngay yow moom réew. waaw <laughs> ak dóor ak ak dóor waar suñu suñu maan caméraman bi. waaw caméraman bi parce que dama ne ah bu ma demee caméraman bi day day day day kii. da ciy bokk. waaw da ah. waaw. indi la kii indi woo caméraman bi. vraiment ah. dafa dafa rafet trop. ayca mën nga joxe wala sa kàddu gu mujj ci ci ci teg tàgguwaale ak téléspectateurs yi. Euh, euh, voilà sama sponsor mu ngi noonu. moom day wane lépp lu nga xam ne ay réalisation président la. Ah, muy liggéey liggéey bu rafet di def social. léegi voilà su ngeen amee problème social ben mhm. dites-le moi ma def la ma mën mhm. ah donc voilà et puis voilà maa ngi tàggu téléspectateurs yi di mhm. am mbégte ak kontante ah mm-hmm. nekkoon ak sama frère yi nga xamante nii voilà dañoo mën li ñuy def dama leen di suivre mm-hmm. ah dama leen di suivre parce que ñun bu ñu nekkee fee yenn saa dañuy am jot mm-hmm. ah, dañuy dugg ci YouTube rek tappe leen gis leen ngeen nekk ay xale nekk ay ndaw mënoon ngeen def leneen mais defoo leen ko yéen a ngi wane yoon bu baax bi yéen a ngi si ay kii waaw ñu ngi ñaan bërëb bi yàlla ful ko amiin amiin ah ñaanal ñëpp jàmm di di di am mbégte ak kontaan dama kontaan tey pour ñëw fii ah te xam naa ne lii du dakk de am na yeneen ñu gën war a gën a yaatal sax di ko jaajëfal bu baax a baax ñu gën ko xam ci Ngô la Diva ba tey nee mën ko dem suivre sur sur plateforme bi yëpp nga dem sur TikTok YouTube ba ci vidéo bi nga xam ne moom lu mujjee génne muy président Macky Sall bi ngeen dem flow ko ah, yow eh, kii Dóor waar xippil xool fii ko leen jaajëfal di béggee laat laxaat borom borom borom iPhone yi laxaat di la ko jaajëfal bu baax a baax sama waa jooju noonu Ngô di la béggee bu baax a baax amaat kontaan ak a baax dalal suñu biir plateau nekk continuer mère maîtrise ah, di di ànd nga xamante ni kontaan a baax àndaloo ki nga xamante mooy Ngola Diva ah, saa su ni ñu koy daal rek mën ngeen dem follow ah, euh, a sponsor bu yanj bi nga mooy xippil xool ñu koy jaajëfal mm-hmm. waaye nag di jaajëfal téléspectateurs yi nga xamante ne yéen doon xaar di jaajëf ki nga ne nag moo baax ci man gën ci man te mën te ñàkk suñu fàllu kan borom lan toir kall borom us far maa ngi koy baax di la jaajëfal di la jaajëfal fu bi di jaajëfal suñu caméraman Dóor waar toir kall moom mi nga xamante ni sànq ba léegi mi ngi gauche mi ngi droite waaye tamit di jaajëfal sa garde nga xamante ni nga àndal di leen nag dig daje beneen inshallah ak beneen invité ci émission sama talent jaa jëf